mën ngaa dugge ci kilifa yu mag yi mën ngaa dugge ba ci ñi gën a ndawee ci yoonu murit euh, thème bi nga wax nga xam ne moom ngeen bëgg ñu nafaralante ko ak mbokki taalibe yi sàkkati xam-xam yi euh, di thème bu am solo euh, thème yëpp am solo alhamdulilah yi ñu tànn waaye bii it baax na ndax loo xamante ni actualité la waaqe la loo xamante ni lu nit kii luy am la lu bare bare mooy mbir la moo xamante ne nit ki danay jànkonteeg moom lu bare bari ci dundam loolu nga junj ñi nga xam ne ñu ngi ci tribunal yi xam nañ ci dara bu baax a baax bari na ci li ñuy jëflanteel waaye ci masala masail yu mel ni bari na ci muy almafquud almafquud nag bokkut ak daa daayan lépp ci ñu ngi koy jëfandikoo mooy ci laneen lu du doomu aadama waaye nit moom moom la ñuy jëfandikoo almafquud mooy koo xamante ni dafa fàddu koo xam ne gisuñ ko kon kooku nag lañuy waxtaanee waxtaane wuñ xaalis bu réer waxtaane oto bu réer waxtaane wuñ kurus gu réer nit ku sànku moom la ñuy waxtaane fuqaha yi dañuy beral masala mii nga xamante ni mooy al mafquud bunt waaye foo ko fekk ci buntu al idda lañ koy sësale ndax al mafquud ak idda dañoo jokkoo bopp ndax boo ko xoolee da ngeen dana leen leer léegi incha allah ci ard bi ñu bëgg a def almafquud li ki ci gën a bari ñu ciy waxal mooy soxnas mooy kuréer mooy almafquud waaye soxna am si la ñuy waxal ndax soxna si mooy ki mënta muñ xam nga doom yi amuñ problème waaye soxnaam si nag mooy ki nga xam ne mi ngi toog di ko xaar gisagu ko kooku la ñuy wax li aju ci moom ndax day toog ndax day dem ndax day sëyiwaat ak yu mel noonu moo tax ñoom day cayit loolu it da cee am moo tax foog fekk fuqahaa yi almafquud mook baabul iddat lañuy ñuy ndax dafa am taraabut gu am doole gu am seen diggante comme ni nga xamante ni fuqaha yi foo leen fekk euh, boo gisee li ñu tuddee baabul xasaayis mooy yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foo leen fekkit ñoom ci baabul nikaax lay jiitu foo ko boo gisee li ko waral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xasaayisam ci baree bari da cee bari loo xam ne dafa nekk ci buntum nikaax ndax yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ki nga xam ne moom la dagan mu takk lu ëpp ñeenti soxna yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ki nga xam ne moo dagan ci moom euh, wala boog moom la yàlla waral ci moom ku ko bañ ci soxna yi koo xamante ni wala yu mel noonu dalaa war a wàcc dëgg na tut muy ànd ak yow mooy kum comprendre ci yow nga koo bàyyi ak yu mel noonu yonent bi sallallahu alayhi wa ba tey mooy ki nga xamante ni kum bàyyi keneen dootu la takk loolu yàlla moo ko araamal kon loolu rek lu gàtt la mooy li waral kon foog fekk mafkuut ngir ngir jàngkat yi ku koy wërati dee ko wër ci git boor yi baabul iddat ñooy dend foog fekk comme ni nga xamante ni su mooy jiitu baabu nika bunt bi lii nag du du conférence am njàngale la gën a doon ndax euh, baabul mafqud am njàngale la moo tax kon xam naa ne dana ñor lool ja sàkkati xam-xam yi waaye nag comme am njàngale ngeen bàyyi xel ne buntum njàng boo ci bëggee jariñu il faut nga déglu njëlbeen gi wala ba ci mujj gi lenn la ci raw doo xam doo ci xam leen ndax dafa jokkaloo fi mu tàmbalee ba fi mu yam loolu ngeen teel ko bàyyi xel njàngale la gën a doon waaye du du conférence am jàngale nag ci leçon boo koy def da ngay diglu njëlbeen gi ba ci mujj ga bu la njëlbeen gi rawee ngir nga jariñoo mujj gi dana jafe wala boog da nga laaj laaj yu bare bare sa bopp ci li la koy waral mooy ñàkk na teewlu njëlbeen ga kon il faut que nit ki day comme ni ko boroom xam-xam yi xamlee ibnu arafa mi nga xam ne ci dem yooyu nga xam ne mooy xamle lu bare bare ni ko waxee rek mooy man inqataa xabaruhu mumkinul kashfu anhu koo xamante ni xibaaram amatuñ ko waaye nag mënees na ko wëri noonu la ko ibnu arafa xamle yeneen ulama yu bare bare taarif nañ ko waaye bu ngeen seetloo fuqaha malikee yi taarif yi ibnu arafa li ñuy gën a jëfandikoo ndax ibnu arafa foo ko fekk ni muy xamle day nekk taarif boo xamante ni jaamee lay doon maanee lay doon mooy day nekk xamle boo xamante ni li ci war a dugg lépp dana ci dugg waaye dana fexeet ba li ci war a génn dana ci génn moo tax ibnu arafa noonu mu ko xamlee ne mooy koo xam ne manin qataa xabaruhu mumkinul kashf anhu dañ ne kuñ jàpp tëj la prison bokkoo ci ab asir bokku ci nekk noonu ba tey asir mooy prison kuñ jàpp ci xare nekk noonu ba tey mahbuus kuñ jàppoon tëj la ci kaso yi bokkoo ci ndax ñooñu ku leen gëstu woon da leen xam waaye seen xibaar kenn umput kenn ku ne xam na fañ nekk ñoom ñaar xam nga moo tax kon ñoom ñaar bokkuñ mafxuut nag dafa réer mafxuut ñeenti xaaj la ko borom xam-xam yi séddalee ku mel ne ibnu rushdin nee ñeenti nit ñooy réer mooy ñeenti ñi nga xam ne maa ngi koy wax ku réer ci réewu jullit yi ci lañu tàmbalee moo gën a bari lu ci aju ku réer ci réeru ci réew meneen mu dul réewu jullit yi mooy ci réewum noonu yi li may wax lépp nag ab xare taxut may wax waaye kii dafa réer ci réewu jullit yi kese ci luut ki ci des dafa réer ci réewu noonu yi ñu réew mu dutu jullit ci luut xare ba tey ki ci des dafa réer cib xeex xeex boobu nag ñaari façon xeex moo am benn xeex bi mooy xeex bu am ci diggante jullit ak jullit ci la kooku réere nga xam ne bi mu jeexee kenn gisatu ko ki ci ku mujj ki nag mooy ki nga xam ne dafa réer ci xeex bi nga xamante ni diggante jullit yi la ak yéefar yi kon boo ko boolee mooy ñeent ñooñu ñooy mafkuur yooyu ki réer ci réewu jullit yi ki réer ci réewu noon yi ñaar yëpp nag ci lu xeex xare moo tax may wax ñaar ñu mujj ñi mooy ñi ku ci xare xare bi nag wala yaasu billah léegi-léegi diggante jullit ak lay doon wala muy xare boo xam ne mooy biñ baaxoo xam mooy boo xamante ni diggante jullit ak noon yi lay doon ñoom ñooñu ku ci nekk am na loo xamante ni moom la fuqaha yi àtte ci yow ne noonu nga war a doxe mooy kim bàyyi noonu la war a doxee ah, ñu ngi koy tàmbalee ci ki nga xamante ni moo réer ci réewu jullit yi ku noonu koo xamante ni ay dafa réer ci réewu jullit yi kenn xamutut ci moom dara ci misaal ku jóge woon fenn nga dégg ñu ne mi ngi Sénégal gi wala nga dégg ñu ne mi ngi Mauritanie gii ñu jege wala ci leneen ci réewu jullit yi ngay xam kenn gisatu ko kenn xamatut ci moom dara kooku ñim bàyyi nii lañuy def kim bàyyi kim bàyyi nag bu ñu ko dee wax xëy na ay soxna ay soxnaam moo tax ñuy wax ndax moo ci ci gën a lor waaye waxuñ nag ay doomam ak ñu mel noonu soxna si mu bàyyi dañ koy tànnaloo ñaar yi ñuy waaja wax soxna si nag moo xam ab jullit la ndax ab jullit dana takk ab jullit loolu sax moo gën moo xam ab chrétien la ndax ab jullit dagan na mu takkub chrétien donte sax daañu leen wax ne sib nañ ko ndax yenn yi ci mën a sosoo léeg-léegi ngir mu koy yar ci loo xamante ni dëpp wut ak amut solo wala yu mel noonu moo xam ñaari gor lañ moo xam ñaari laneen lañ du gor moo xam ay xale lañ moo xam ay mag lañ loolu lépp dara amut solo mooy daal soxna si mu bàyyi nu mu mën a mel waaye ñëw na ci xaad yi bi nga xam ne moo fi nekk wala bu fekkee xaad yi amu fa dem na ci imaam jafe nekk wala dem na ci ki nga xamante ni moom la fa moom lañ fa teg muy doxal mbiri jullit yi ne ko kat sama borom kër dafa réer gëj nañ koo gis ñu ngi ko gëj a gis béréb jamono sàngam wax dat bu yàgg mu laaj kooko li nga xam ne moom la xaadi boobu wala imaam jooju def mooy li mu koy njëkk a laaj yow da ngaa tànn ñu àtte la wala da ngaa tànn mën ngaa muñ bu fekkee nee na mën na maa muñ amul jafe-jafe dama la ko doon yëgal rek ñu ne ko baax na mën ngaa loolu amul problème bu ci ndax moom moo dugg ci loolu waaye nag bu fekkee jàmbat na ne kat réer na gëj naa koo gis mu ngi bëgg a mat fukki at kenn xamatut fu mu nekk euh, Sénégal laa ko mujj déggee wala Mauritanie laa ko mujj déggee wala Maroc laa ko mujj déggee su boobaa kim demoon doon ko jàmbate muy xaadi ba wala imaam ja da koy wax ñaar yi comme léegi tànnoo toog muñ danga tànn ñu atte la lii la ñuy def mooy day njëkk gëstu ndax kii soxnaam la am déet bu ko loolu leeree mu gëstu ndax li mu wax wér na am déet borom këram bi nekk fi am nekk fi ndax nit ki ma jigéen mën na ko def léeg-léeg ngir bëgg a tas ca xam ngeen ne ab sëy dafa xaw a diis ci lislaam takk ko yombut waaye tas ko it nag yombut faaw bala nga ko tas war nga ko sukkandikoo ci leer bu loolu amee dañuy wax soxna si bu fekkee sart yi ci des yëpp mu ngi doon dox mooy waa ji li muy tukki tukki teewut bàyyi na fi lu mu mën a dundee bàyyi woon na fi bitig bu mu mën di dundee wala oto bu mu mën a jëriñ jële li muy dundee wala laneen wala laneen Euh, imaam nii lay def wala xaadi boobu mu dem day koy jox ab day wut ab da koy wutal ab dig day yónnee ñu ko wëri réew moom ko yaakaare mu woo représentant yi fa nekk ne leen day wut ku mel nangam ak nangam ak nangam ku ko gis nanga ko bind wax ma bu toogee ab diir nag ba nga xamante ni yónnee na ñooñu kenn waxu ko dara wala gisut lu mu xam day jox soxna soosu ne ko dangay dem toog ñeenti at laa lay may su ñeenti at yi jàllee nag danañ leen wax léegi atte bi nga xamante ni moom la ko imaam bi di atte waaye ñu wax lu ndaw foofu ñu dugal ko ci kii balañ koo saña am na lu gën a gaaw soo déggoon ñu ne kooku réer ci réewu jullit yi bàyyiwu fi lu mu mën a dundee mooy comme li nga xam ne moo gën a bari lu mu am léegi bàyyi lu ko dara wala boog soxna si ne sax bàyyil na ko lu mën a dundee waaye dafa loru ci waa ji tukki gi mu tukki mën muñ loolu ndax jigéen la mënta toog noonu rek di xaar ba bëggut a def lu su boobaa xam leen ne am na waneen yoon wuñ ko mën a jaare tas ko ci lu procédure bu guddi bi kon yoon wu guddi wii wi balañ ko cee jaare mooy bu fekkee bàyyil na ko lu mu mën a dunde wala boog ndaw siit wax ne man kat loru wu ma ci tukki bi mu tukki waaye nag dafa jaadu xamatuma ci moom dara ci mënu maa nag bu fekkee nee na ñàkk gi mu fi ñàkk nekk maa ngi ci loru ndax dama ko soxla wala mu ne bàyyi lu ma lu mu mën a dunde am na yoon wuñ mën a jaare tas ko moo gën a gaaw mooy nañ ko tas benn bi ci ne bàyyi ko lu mën a dunde ca xam ngeen ne loolu da ngeen jàng ci fiq ñu ne ci yoon yi nga xamante ni manes dañ ca war a tas ab sëy la mooy soxna soo dem abandonné ko dem bàyyiloo ko lu mën a dunde niki noonu ba tey soxna soo tukki bàyyi ko fa donte diggante bi yàggut ca wane ne loru na ci bàyyi gi ko fi bàyyi amul tëddoog moom ca loolu xam nga àqale ci moom loolu ba tey lu ñu war a mën a jaare ba tas ko la su boobaa ko tas ca procédure bi yëpp duñ ci jaar loolu ñu a leeral xanaa di leerale foofu it ne soxna kenn waru koo abandonné dem loolu dañ koy tere lu ëpp genn wàllu at lu ëpp juróom benn weer dañ koy tere walxaybu anha fawqa nisfi aami biduni izniha min alxaraami la borom xam-xam yi wax moo tax ñiy tukki war nañu bàyyi xel loolu koo xamante ni da nga tukki lu ëpp loolu na nga waxtaan ak sa soxna ba mu jubóog yow ci loolu na nga xam ne bu fekkee jubóowut ak yow ci loolu bu fekkee toog na lu ëpp loolu bu ko neexee sañ naa dem ci attekat yi ñi nga xam ne ñoo fa nekkal diina ñu tas ko nañu bàyyi xel loolu cosaanul loolu mi ngi jógee ci seydina omar radiallahu taala anhu bi nga xamante ni moo nekk xalifa bis muy doxantu Omar xam ngeen ne ku ñaw la woon da daan wër ci ci ci kër yi di doxantu ak guddi dégg soxna sa ara ab arab buy wayantu way wayu daw yaram waye la ca Omar déggee mooy wéet na soxna si wéet na amut kum nekkal amut ku ko wettali wax lu bare bare tataawala haza leylu waswadda jaanibu wa arraqani an la xalila ulaaxibu wayu gudd a gudd Omar yaramam daw ba mu xëyee yónnee fa ne soxna si ma dégg ci kër gi li mu doon wax lu mu ci jublu ñu ne ko kat ci borom këram dafa bokk ci ñi nga xam ne yónnee yabaloon nga leen ci xeex sangam ci mu gëj fi ñëw ñëwagut bis booba ci la Omar waral la ne day tere léegi kenn tukki lu ëpp juróom-benn weer di ko bàyyi sa soxna ginnaaw kër loolu lu ñu dugal la ci diggante bi mag ni bàyyi xel moo tax bari na nag ci jamono ji léegi tukki abandonné sa soxna ak lu la mën a bàyyi ci tukki ba léegi-léegi sax da ngay gis ko fa am at yu bari waaye loolu jaaduwut waaye rek fu mu dafa digle woon ne bu mu ëpp juróom weer xanaa nag soxna si may la ko te dangay xam ne it léeg-léeg bu la ko soxna si mayee ngir bëgg maslaa des fay it da xam ne mi ngi loru bu baax a baax ci des ki mu fi des moom rek ca it mën naa dem ba mu dugal ko ci lu mu war a dugg ñu ci kooku kon ki nga xamante ni moom la fi borom këram nekkut bi nga xamante ni xaadi bi wala imaam bi wërlu na ko gisu ko nee naa la da koy tëggal ñeenti at ñeenti at yi fan la jógee Seydina Omar radiallahu taala anhu mi ñu doon wax léegi mooy ki nga xamante ni moo ko dogaloon moo ko waraloon bu yàgg saxaaba yëpp it dëpp woon ci bu dee as gor ñeenti at bu dee keneen koo xam ne du as gor ñaari at donte sax borom xam-xam yi wuute nañ ci lool nee nañ lu mel nii àq ji tax mu jóg moo tax kenn wuru cee ràññeele diggante gor ak jullit ñeenti at yooyu la ko imaam bi may biñ ko gëstoo ba àggal ñeenti at yi nee naa la mi ngi jóge woon ci cosaan li atte bu Omar atte woon saxaaba yëpp dëpp woon ci lenn ci borom xam-xam yi ne ñeenti at yi liñ ci jublu mooy li gën a yàgg ci lu jigéen di ëmb ndax da jàng ci téere fiq yi ñu ne leen xam ngeen ne ëmbul liñ ci gën a xam ñun mooy li tàmbale juróom-ñaari weer ba juróom-ñetti weer wala yu mel noonu waaye nag xam leen ne ëmb mën naa ëpp loolu ëmb borom xam-xam yi nee nañ mën naa dem ba mat ñeenti at wala mu mat juróomi at wala yu mel noonu moo tax kon ñi jàpp ne ëmb ab diiram ñeenti at la ñooñu ñoo teg lii maan mooy ñoo ne moo tax kon ñu koy tegal ñeenti at yi wa amadul xamli sinuuna arbau aw xamsatun wa qiila sittun ajmau bu fekkee wër nañ ko ba tegal ko ñeenti at yooyu ba mu jeex ca feeñu ci na dem iddawu ji loolu lañ koy digal na dem iddawu ji lan lay iddawu kal wafaati comme ni ko Cheikh Khalil waxee rek wax taddat kal wafaati na dem iddawu ji idday ku faatu boo gisee nag ñu ne na wu mal ne kuy faatu ndax kii dëgg-dëgg faatuwut waaye dañoo at nattal rek ne dafa faatu waaye xam ngeen ni ko faatuwut moo tax lii la boroom xam-xam yi tam wit lañ ko tudde mooy dañ koo rey dañoo atte ne dafa faatu waaye xam nga a xamuñ ndax faatu naam déet ba léegi moo tax kon biñ ko attee juróom-ñeenti ñeenti at yooyu ginnaaw biñ ko gëstoo gisuñ ko liñ koy digal mooy demal iddawu ji kooka nag day iddawu ji lu mën a xew moo xam bi borom këram ba di faddu di dem ci réewum jullit bu moom a gisatuñ ko seqoon naag moom dara mooy sëyoot naag moom wala sëyuta nag moom waaye ak lu mën a xew day dem iddawu ji su iddawoo ba noppi eh, ca diggante bi mu iddaw mu def li ñuy wax al ihdaat al ihdaat des na ko dugal fii mooy jigéen gi bu xamante ni borom këram dafa faatu buy muuru dafa war a def li ñuy wax ihdaat mooy euh, wërta toiletu wërta sol lu rafet wërta takk euh, takk ay ay ay ay ceen yu rafet wërta def xeeti tusngal ak yu bare bari waru ko def xanaa rek ngir lor rek moo war a tax mu def tusngal mooy jigéen gu mel nii kon donte sax xamuñ ndax jëkkëram faatu na am faatuwut waaye at iddaw ko faatu lay faatu day def ihdaat su noppee soo xamante ne def na ihdaat ba noppi duñ ñam foofu waaye xaadi bi da koy nattalelaat am passé mooy day dogal signé ne fase naa ko xam ngeen ne kon li ngeen ciy jàngate mooy jigéen ñi jabari jàmbur jot ci yombut maanaam lay tax lislaam li daga daganoon mu tere ko ko ba keneen man ko takk xam ngeen ne jafe na moo tax loolu mën nañ bàyyi xel bu baax a baax lislaam xaw naa sonn ci wàllu pay yeeg yu mel noonu woyofalu ko ci benn côté gis ngeen kii yoon wi mu ko jaarale boroom këram réer na kenn gisatu ko dañuy yónnee wërlu ko ci réew moomu bind ngeen bàyyi xel nag ne fere yi ci am diggante boobu mooy bi ñu koy wërlu wala yu mel noonu nag soxna si mooy ki ko war a fay bu fekkee ne baytumaal am na fi nag ñu ko mën a génne lenn ci borom xam-xam ne nañ ko ci génne waaye li gën a wér soxna si a fay ndax nag kat soxna si moo ñëw sàkku ne dafa bëgg ñu dindil ko lor ji kon nag loolu moom la engagé engagé wut jullit yëpp moo tax kon li gën a wér kooku mooy ki nga xamante ni mooy ki ko war a fay mooy mooy ki nga xamante ni moo war a fay fere yi nga xam ne am na ci mooy bu fekkee crédit téléphone imam yónnee na ko woote ci war a fay bu fekkee na jox na nit paas mu dem ci réew mooma kooku mooy ki nga xamante nii mooy ki ko war a fay bu iddawoo nee naa leen ba noppi idday ku faatu ba def li ñuy wax ixdaat buy iddaw na def mal ne ku jëkkëram faatu rek donte sax jëkkëram xamuñ ndax faatu na am waaye ñun ñoo ko rey li ñuy wax tamwid lañ ko def dañ ko rey su boobaa dañ koy nattaleel genn passé waaye nag na la ne suñ ko fasee moom bu imaam bi wala bu bi dogalee ni kon fase nañ ko ginnaaw bi idda ji jeexee bañ bu amaatee kañ la ko borom këram di ñàkkaat mooy bu amaatee borom kër baneen koo xamante ni xamu ci dara ci mbir mi ba sëq ak moom dara foofu dong la ko jëkkëram di njëkk ji nga xam ne bu feeñaatoon wala ñu jekk ne mi ngi dundaat wala ñu jekk-jekki ñëw ngir ci karaama noonu rek su boobaa foofu rek la koy ñàkkee loolu li ngeen ci xamee ne mooy kon soxna si jàmbur moom defe naa nit ki la ko ciy jotale yombut dañ koy wëri dañuy joxe am dikk wëri ko ci ci ci ci ci fa fa réere bu jàllee ñu jox ko digub ñeenti at mu toog muñ dégg nga bu ñeenti at yooyu jàllee eh, ñu ñu ñu idda ñu wax ko ne ko demal iddawu idday ku faatu idday ku faatu xam ngeen ko bu dee asgor ak bu dee koo xamante ni du asgor eh, li nga xamante ni moom la asgor di iddaw rek moom genn wàll eh, moom genn wàll gi moom la koo xamante ni ab keneen la mooy koo xam ne du asgor moom lay iddaw ngeen waxoon nañu leen ne fere bu ci am ci diggante boobu soxna si mooy ki nga xamante ni moom la ko lislaam di teg bi loolu jàllee nag dañ koy tas imaam day def beneen procédure bu bees mooy day fexe tas sëy boobu décider bind naa ne tas na sëy bi soo xamante ni tas na sëy bi nag xam leen ne foofu jeex na soxna soosu soxlaatut muy demaat ci imaam ji wala muy demaat ci xaari bi di ko wax la maanaam moom moo liibar na ci boppam mën naa demaat ay kilifaam mayee ko bu gisee keneen ku ko bëgg mën naa dem sëy keneen mooy na xam ne loolu daal mën naa dem di keneen na xam ne nekkatul ci pas-pasub jàmbur nekkatul ci buumu kenn benn jafe-jafe rek moo nar a am mooy waa ji bu fekkee jekki-jekki ne feeñaat ca loolu mën a nekk la waaye danañ wax léegi ndax léeg-léegi dana feeñaat ñu nangu ko ci borom këram bu bees bi delloowaat ko borom këram bu njëkk ba waaye li gën bari dana feeñaat waaye borom kër bu njëkk bi day ñàkk incha allahu taala danañ ko leeral léegi soxla su mel nii bu fekkoon ne borom këram bi sëyoon naa ak moom bàggal te joxu ko woon ak cen danañ ko jox cen gu mat sëkk fay ko ko mu dem dañ koy joxaale ndax yeyoo ko su fekkoon ne nag joxu ko woon ak cen maanaam safara bu fekkoon ne séqutoon ak moom dara jamono jooju kooku nisfu sadaax mooy li nga xam xamante moom la yow mooy genn wàlluk cen lañ koy lañ koy jox geneen genn wàll gi war ngaa laaj ne lu tax duñ ko ko mottalil ndax jigéen même boo ko takkoon boo faatoo cen gi war nga koo jox mat sëkk waaye dañ naan la kat même boo duggut ci moom dara waaye dañ naan euh, ngir bañ a jël alal jàmbur lii wóoruñu lii dañ ko àtte rek ngir dindi lor dañ ko atte ngir dindil ndaw si lor jafe-jafe bu ko mën a dem moo tax li genn wàllu cen gi balañ ko koo jox moom lu jafe-jafe danañ toog ba xool dat boo xam ne wóor nañu ne waa ji mënatu mënatu cee dund ñu doog koo jox cen googu wala ñu dem boog ba am lu leer leer ci ne waa ji faatu na loolu nag kenn xamul kañ lay doon waaye loolu it lislaam dafa màndu rek moo tax bëggul di tooñ kenn waaye nag bëggutit nag ñuy tooñ kenn mooy di jël alale kenn wala yu mel noonu di ko joxe moo tax soxna soosu kon bu fekkoon ne seqagut ak moom dara li gën a wér euh, sa daax rek moom lañ koy jox euh, su na ngeen xam ne nag yooyu bu jàllee moom jeex na bu fekkee mi ngi si biir idda ji na ngeen xam ne kenn waratu ko dundal ci alali boroom këram ndax idda ji atteb idda ku faatu la yor te xam ngeen ne jàng ci téere fiq yi ñooy leen kuy iddawu iddawu ku faatu li yéemu leen kooku wax nag du ko mën a xam borom këram war ko dundal maanaam kenn wut a jël ci alali borom këram ji dundal ko ci loolu masal la moo xamante ni war na bàyyi xel waaye nag diir bi ñu ko doon wër yi mooy diir boobu ñu ko jox ñeenti at yooyu yëpp moom ci alali borom këram lañ ko soññee dundale ndax dañu jàpp ne borom këram mi ngi dund ba léegi bu jeexee nag comme li ñu la waxoon rek mooy bu ñu attee lii ba noppi bu ko imaam attee ba liy jàll nag ndaw si jeex na sañatut a wax nag jekki-jekki kër ga naan damay toog damay xaar sama borom kër déedéet loolu moo te nekk ndax loolu bu ko bi mu ko bëggee da ko waroon a wax ca njëlbéen ga nga xamante ni loolu lañ koy atteel amaa nag biir dig bi bi dig bi jeexagut su ko neexoon ne arrière naa ci li ma waxoon damay far muñ sama mbokk la wala nangam la waaye bi nga xamante nii nag wax na bañ atte ko li ñu ko war a atte jeex na la nekkatu ci kon idda ji jeex na bi idda ji jeexee dañ koy passé dañ koy créer beneen fase boo xamante nii rek mooy tax nag mu mën a am beneen borom kër borom këram boobu nag saa su seeyee ak moom na xam ne moom ku njëkk moom jeex na même bu dekkuwaatoo ni nag ala xaal na xam ne ñàkk nag ko waaye nag ngeen bàyyi xel ci ne fase moomu ñu koy nattaleel nga xam ne imaam moo koy defal wala xaadi bi lay doon pase la moo xamante ni boo déggoon ñu ne borom këram bu njëkk ba fase woon ko ñaari yoon fase mi bu ci dolli ko ba ñetteelu pase lañ koy tuddee nga xam ne kon day araam ci moom loolu sew-sew la boo xam ne mat naa xam borom kër bii nga xam ne moo réer ci réewum jullit sëñ atte ko atte bu gudd bii ñu doon wax wari ko jox ko digg boobu ñuy wax ne ndaw si demal iddawu ji idda yi ku kere créé benn fase moo xamante ni imaam ji moo koy bind ne ko demal ba mu amewaat borom kër dem sëyiwaat ñu jekki-jekki borom kër bi feeñ ñëw wala feeñut waaye nit wax na ku ñu doy ne ah waa ji mi ngi dund loolu lu mën a nekk la ndax xam ngeen ne li ñu doon def li weesu lépp ittihaad la nit ki war naa mën a nekk Touba gii rek làqu ci génn kër ñu def li ñu def lépp ci duñ ko gis lu mën nekk la xam nga ne mën nga koo wër ñeenti at doo ko gis lu yombal la bu tëjoo fenn génn doo ko gis mukk bu nëbbutoo wax ñim nekkal ne la nëbbu leen ma kenn mënu ko gis moo tax kon li muxtas Cheikh Xalil wax fa in jaa aw na tabayyana annahu xayyun fakal waliyayn borom kër bi jekki-jekki ne feeñ wala feeñut waaye xam nañ ne mu ngi dund ci misaal jekki-jekki ne wax ak nit ci téléphone jekki-jekki ne bind na leetar joxe preuve yoo xam ne xamante nañ xam nañ ne waa ji mi ngi dund loolu moo masala la mii fuqaha yi tuddee tuddee masalatu zaatul waliyayni ñooy niroo masalatu zaatul waliyayni yéen ñi jàng teere fiq yu mag yi muxtasar xalil wala yu mel noonu xam ngeen ko loolu mi ngi amee ci soxna soo xamante ni dafa tawkil ñaari nit ñaari góor ne ku ne nga ne ko mayee ma boo gisee borom kër mayee ma jox naa la sama kilifteef ñoom ñaar ñooñu ñu jekki-jekki mayee ndoo ko ca yëgoowuñ loolu masala mu gudd gudd la kooku liñ ci lislaam àttee mooy liñ àttee ci borom soxna si nga xam ne dañ naan borom kër bi dafa jekki-jekki ñëw wala ñu jekki-jekki yéeg ne mi ngi doon dund nii la demee soxna si bu fekkee borom këram ñëw na fekk na ñu waroon ko ba jox ko ñeenti at yi ba mu ba noppi te amagut borom kër amut benn jafe-jafe dañaan ko dellul si borom kër rek coow lu jeex bu fekkee borom kër bi ñëw na ba idda jeeg lépp jàll fekk nañ bam beneen borom kër takk ko waaye kookoy day ab moodu moodu nekku fi nga xam ne seqagut ak moom dara ba tey dañ naan sëy boobu amut dañ koy taxawal ne ko delluwaatal sa borom kër bu njëkk ba ba léegi bu fekkoon ne ñoo na laneen lu metti am ci mu am beneen borom kër borom kër ba seq naa ak moom dara waaye soupçonné nañ borom kër ba ne yëgoon na ne kii amoon na jëkkër waaw imaam ji man na koo xam ci ay dalil war naa xam ne kii ku mu yàgg bëgg la moo tax mu profité woon gaaw ko takk waaye leeroon na ko ne borom kër ba mi ngi dund foogoon nañ ko ci moom wala ñu foogoon ko ci ndaw si su boobaa lu metti dana am danañ ko tàggaleeg moom ci saa si delloo ko ci borom këram bu njëkk ba mooy soxna si jàmbur nangu ko yombut fenn rek mooy fi nga xamante ni borom kërug ñaaral bi danañ ko ko bàyyee mooy bu fekkoon ne dafa ñëw fekk kooku takk ko takk gu dagan nag laa xooxuma la nag mu takk ko takk gu daganut bu ñëwoon fekk mu takk ko soxna si juróomeel dañ koy tas delloo ko ko ndax soxna si juróomeel kenn ko takk buñ ñëwoon fekk ko mu takk ko ci idda mooy takk gu baaxut dañ koy tas delloo ko ko ndax loolu dëgganut buñ ñëwoon fekk mu takk ko ci façon nikaax yi nga xam ne dañ koy tere yëpp barina na da ngeen ko xam ngeen ko nikaax yëpp bu mu ci mën a doon ku njëkk du ko ko xañ dañ koy nangu delloo ko ko kon fenn rek nag lañ koy bàyyee borom kërum ñaareelam bi mooy bu fekkee bi ñëwee fekk nañ mu iddawu jël soxna si takk ko takk gu dagan laax nag wax mën a takk goo xam ne dafa daganut ba noppit sëy moom kooku su boobaa foofu rek lañ koy bàyyee loolu la Cheikh Khalid di junj naan fa in jaa aw tabayyana annahu hayyun fakkal waliyayni mashalatu zaatul waliyayni it ci ñi ko jàngagut nañ xam ne noonu lay demee mooy ku am ñaari boroom kër euh, yoo xam ne comme liñ jotaay yi ñu wax fii yëpp rek noonu lay deme am na ci lu xaw a metti loo xam ne man na cee am foo xamante ni danañ ko xañ sox borom kërub ñaareelam bi force mooy buñ gëstoo ginnaaw bi yëg ne waajikat bi mu faatu moo bi ko borom kër bi di takk jamono jooju la borom kër bi mujj bi la jamono jooju la faatu nga xam ne day mel ne ndaw si ci idda la war a nekk su boobaa lu métti dana am dañ koy tas sëy bi ndax takk jigéen ci idda dafa araam ca borom xam-xam dañuy wax ne man istaajala shay'an qabla ibbaanihi uqiba bi xirmaanihi mooy dañ koy tas ca lu métti dana ci am mooy bu fekkoon ne euh, seq naa ak moom dara lu mu néew néew donte dafa bànneexu ci moom dañ koy tas ca dootu ko mën a takk bu mukk ba faw ndax takk jigéen ci idda danañ ko wax sax incha allah bu fekkee waxtu bi des na danañ waxtaani masala moomu takk jigéen ci idda noonu la mel ku ko def noonu lay demee bu fekkee da ko ngoro ci idda ji takk ko idda jum mën a doon idda yi ku faatu idda yi li ñax istibra jigéen goo xam ne dañoo sëy ak moom nga xam ne dafa war ba am ay régal ñu doog ko takk idda yi janeen mën a doon ku ci takk soxna séq ak moom dara dañuy jëflante ak yow ci safaan bi li nga bëggoon mooy dañuy tas sëy bi ba faw dootoo ko mën a takk ndax dañuy wax ne man istaajala shay'an qabla ibbaanihi uqiba bi xirmaanihi am na masala muy faral di am lu bare bare ci ci ci ci ñu bare mat nay bàyyi xel euh, da ngay gis sax ñu koy atte ca duñ ko seetlu soxna soo xamante ni dafa nekk ak xale bu góor ku bëgganteel ba ba mu diggante xam leen ne soxna soose li ñuy wax istibra lay def moo ku iddaw ñoo bokk àtte ñu jekki-jekki rek lëmas lëmasal may ko borom kër booba loolu na ngeen xam ne borom kër booba danañ ko tas ca dootu ko mën a takk bu faaw ndax day mel ne moo ko takk ci idda ñooyam lu baree bare lu mu am la mën nañ bàyyi xel bu baax a baax ñi dañ koy def ñenn ñi dañ koy laaj ñenn ñi sax léeg-léeg nga tontu ci nit ba àggal waaye da ngay xam ne ñéeg na waaye lam la nga ko waxoon bàyyiwu ko te loolu des ko def jigéen ku lu mel noonu bu ci amee li liy àtte ba kee da doon njaaloog moom bàyyi ko ba mu am doom am alal aqal ba istibra gi jeex ndax bu amee doom loolu jeex na euh, su boobaa nag ñu doog xool beneen atteem waaye nag am maa di ko may noonu ci biir jamono jooju kenn ko def ndax jigéen ki jamono jooju mu toll kenn waru koon takk bari na nag masha Allah loolu lu muy am loolu mën nañ koy bàyyi ala kulli xaal soxna si ñu doon wax nga xam ne mooy soxna si mafxuut ci réewum jullit dana takk soxnaam maanaam dana donn am soosu nag loolu mooy li nga xamante ni moom la boroom xam-xam yi wax koo xamante ni yàlla dogal na amoon nga soxna yu bari am ñetti soxna lu mel ni dal la wala ñeenti soxna réer xam leen ni atte bi ci kenn ki rek mooy atte bi ki ci des mooy kenn soxna si bu fekkee moo dem boole ko boole ko ak imaam ne ko sama borom kër dafa réer nangam ak nangam ba imaam jaar fii ma wax nii wala xaadi bi diggante boobu feek dat bi jeex ku jógaat ci soxna yi demaat kalaame ji xam ne ne atte bi benn la mooy imaam du ko beral atte boppam comme mokkee ñoo bokkoon borom kër rek benn la loolu la muxtasar xale di ñu naan wa darbun li waahidatin darbun li ne benn la rek atte bi benn lay doon waxuñ nag ñu bàyyi balay jeex ba kay amaat borom kër keneen doog a feeñ su boobaa kon dañ koy joxaat atte boppam waaye nag diggante bi mooy boo xamante ni yëfi jeexagut mooy mu ngi ci biir digg boobu ku ñëwaat di boole si benn la atte bi benn rek lay doon loolu mooy ki nga xam ne mooy mafxuut ci réewum jullit kooku nag loolu nag day mel ne mooy li gën a bari mooy li gën a bari la ma am bu ngeen ko seetloo moo tax li ci aju gën naa gën naa gën naa gën naa gën naa yaatu xanaa rek liñ ci dolli foofu mooy danay am lu mel nii lu bari danay atte la yoo xam ne danay am Euh, lii nag am na ci loo xam ne dafa dëpp dafa lëkkaloog dund gi euh, am na sax ci lu ci lu yàggul rek koo xamante ni boroom këram defe naa dafa réer wala yu mel noonu kenn gisatu ko daal defe naa ak wéree dee tax mu réer nag euh, bi mu ñëwee dem dem a tëmuñ dëgg la kooku lislaam may na ko comme bàyyeelu ko lu mu mën a dundee ñu mar na ma des na koo tas xam naa dem nañu tas ko waaye nañ sëye woon ñoom ñaar day sëy boo xamante ne dafa am ay kayit ak yooyu kooko jekki-jekki feeñ wala yëg ko ñëw yóbbu ko ci yoon ba mu demee xam ngeen ne yoon lim ko atte rek yi mooy yoon yi ci des nag laax da ko yóbbu ci tribunal yi ñu attee ko ne ko kat jabari jàmbur ju xaw a tas nga xam ngeen ne ci loolu lu xaw a diis la maanaam teg nañ ko ci daan yu cher waaye maa ngi fàttaliku mu waxtaan a kenn ci borom xam-xam yi dëkk bi ku ku xarit ak waa muqaddamatul xidma bii sax la kooko jox ko xel mu rafet ne comme li la lislaam lii la biñ ci waxee ma ne ko lislaam digal na la nga tas loolu moom pexe amul mën ngaa tas comme bàyyi loo mën a dunde jarul sax indi naan ñeenti at ak ñetti at bàyyi loo mën a dunde wala yaa ngi loro ci bàyyi gi mu la fi bàyyi nañ ko ci loolu waaye nag comme yemoo woon yow tam ci lislaam noonu rek booba da ngaa demoon sukkandiku bi ngeen di séyante ci kayit na nga fexe ba yoon nam la takkee woon yoon woow nga dem yoon tas la noonu ci benn borom xam-xam ndeysaan moo ko conseil ca loolu baax na ndax defe naa ne gis nañ keneen koo xamante ni defutoon ko waaye jëruloon na ko la ñuy conseil ku mel noonu rek koo xamante ni kayit wu mel talaax bi nga xam ne wax nañ ko léegi ne naka ko imaam kereel bind wane ne tas naa sëy bi na ko ko ku mel noonu ku ko amoon ci kayit na góorgóorlu kon ngir bëgg a set ngir ngir bëgg a bañ amaat borom problème na di fexe ba kayit yu mu amoon wane ne sëy naa ci ne def amaat kayit woo xamante ni tas na ko loolu bu demee ci ñi koy attekat yi incha allahu taala danañ ko ci attee mu des ba tey keneen koo xamante ni dafa réer ki ñu doon wax mooy ku ci réewum jullit ku ci réewum shirk ardu shirk lan mooy atteem dañ ci charte rek sart bi ñu waxoon ci kuréer ci réewum jullit mooy na na ko bàyyi lu mën a dunde ca ndaw si bu mu ne loruwuma ci bàyyi gi ma fi bàyyi ca bàyyi ca ak man dara waaye bu fekkee loolu lépp ëpp waaye dafa réer ci atte ci ci réewum yéefar kooku moo gën a metti ab atte dañuy xool li nga xamante ni moom la ñuy wax sinnu taamir ñu ñu ñu ñu nattaleel ko waa ji feek jàllut ndaw si du sañ a dem say ak keneen ku tukki woon ci réew moo xam ne réewum yéefar la yàlla dogal boroom këram réer na kenn du ko gis mu dem boole ko ba mu ko boolee euh, duñ ko joxal duñ ko jox ab dig duñ ko jox dara mooy dañuy xool li nga xamante ni moo gën a bari ci lu nit ki mën a dund mooy dañu xool li nit ñi jàpp ne moo gën a bari ci lu ñu dund loolu lañ koy nattaleel feek jàll du mën a dund loolu nag lu metti la euh, boroom xam-xam yi dañ cee wuute am na ñu ne juróom-ñaar fukki at dañuy bàyyi ba waa ji dund lu mat juróom-ñaar fukki at mu doog a jàll am na ñu ne juróom-ñett fukki at am na sax ñu dem ba ci téeméer at waaye xam ngeen ne loolu lu métti la ma war a si naa mën a laaj lan mooy différence ñaar ñi soxna see ñu yombalal ko mbir yi may ko ñeenti at rek atte ko kii ñu ne ko déedéet yow da ngay xaar ba mu dund ba mu dund li jaadu ci ab jullit war ko dund bàyyi xaar loo ko juróom-ñaar fukki at bokkuñ réewum jullit néew na ab jullit lu muy tëjee jàpp otage ab jullit ne moom di ko tëj loolu bëriwul lu muy am te bu dee réew yéefar yi mën naa am mënees na ko jàpp tëj ko wala yu mel noonu ci kooku moo tax ñu koy bàyyil diir bu mel ni loolu fuqaha yi loolu la ñu wax foofu kon ku mel noonu koo xam ne dafa réer ci ardu shirk ginnaaw bi nga xamante ni dem na ba kalaame ko loolu moom lu metti la ko xaadi bi di atteel mooy danaan ko da ngay xaar nag dundub taamir dundub taamir nag li nit ki gën a bari lu mu dund borom xam-xam dañ cee wute wa huwa sab'un waxtaara samaanoon comme ni ko muxtasar xalil waxee wa xukima bi xamsatin wa tis'in am nañu ne juróom la loolu wax ak Ibnul mi ngi ko sukkandikoo ci lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne amaaru ummati min as-sittina ila as-sab'in loolu it ni muy demee dañuy xool borom kër ba bu fekk ne juróom-benn la am bi muy dem nañ ko nañ ci am ci lu wóor nag juróom fukki at nga ko ci tegal ne kon dee na doo ko atte ne bu fekk ne juróom-benn fukki at la am ak juróom-ñeent ci wax jooju waxi Malik ak Ibnul Xaasim benn at rek nga ko ci tegal atte ko ne ko kon mënees naa tas sëy bi waaye looloy looloo maanaam mooy dañ koy atteel ci li nga xamante ni mooy li ab jullit baaxoo dund loolu nag nee naa la am na ñu ne juróom-ñaar fukki at la moom la Malik wax ak Ibnul Xaasim Cheikhaan muy euh, Xaabisi ak Abu Zayd al-Xayrawaani ñoom yokk na juróom-ñaar fukki am na it ci jamonoy yi ñoo xamante ni dañ ne mooy xamsun wa sab'iin mooy mooy juróom-ñaar fukki ak juróom ala kulli xaal euh, loolu. loolu mooy ki nga xamante ni dafa réer ci suufus loolu mooy ki nga xamante ni dafa réer ci suufus kéefar bi nga xamante ni dem na boole ji ca ñu gëstu ne bàyyi lañ ko lu mën a dunde ñu gëstu ne amul benn lor dañ naan ko kat yow dañ lay xaarloo liñ lay xaarloo nag boroom xam-xam yi bu dee ci mësab Malik juróom-ñaar fukki at lay doon ndax loolu mooy li ci gën a siiw mooy mazhabu Imam Malik Ibnul Qasim ñu ngi ko sukkandikoo ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax yi bayna sittina ila xam ne day mel ne kon mooy dund gi a yem day ne lu ko ëpp kon rek euh, lu bari la waaye li gën a bari kon diggante boobu ci la yem ala kulli loolu mooy atte bi loolu mooy atte bi niki noonu ba tey ab prison koo xam ne dañ ko jàpp tëj ko ci réew yi yéefar yi nga xam ne ab jullit la boo xam ne ab xeex dafa amoon waaye ñu baree bari nee nañ atte bi benn la mooy lu mel noonu rek lañ koy jox euh, ku mel noonu bu fekkee dañoo wute woon ci atam ñii ne juróom-ñaar fukki at lañ koy attee ñii ne juróom-ñett fukki ñaar fukki at ak juróom li ngay njëkk a laaj kii bala koo attee danaan ñaata at la amoon kii nee na juróom-benn fukki at keneen ñëw ne déedéet juróom fukki at la ngir bëgg lu gën a wóor at yi gën a néew lañ koy jox moom la ko xaadi bi di jox ñu xool la ca des waaye nag xam leen ne lii moom lu xaw a métti la mat nay bàyyi xel waaye alhamdulilah xam naa bëreetut loolu ndax euh, macha allah daal bëreetut xëy na ndax réew yi jullit yi réew yi am léegi même yu ci bare bu fekkee dañoo nekk ardu shirkit waaye bokkut ak ardu shirk yi ñuy wax ndax réew la yoo xamante ni dañ fay duggee ci visa dañ fay duggee ci garante mooy nekkut foo xam ne dañ fay rayante daal jullit ak yéefar maanaam xeex dafa am lislaam ak kii atte am fa niki noonu ba tey am na keneen beneen ñaar ñu réer ñi kon ñu ngi noonu am na ñeneen ñaar ñu ci des ñoo ci gën a yomb ay mbir mooy ñi nga xamante ni dañoo réer ci ab xeex ab xare xare ba nag wala iyaasu billah léeg-léegi xare lay doon bu nekk ci diggante jullit yi wala iyaasu billah na danay am léeg-léegi fàttaliku leen bu yàgg li amoon euh, waqaatul xorra xam nga li amoon euh, waqatul xar li amoon loolu yi fi amoon ci ginnaaw mu neexut a tudd am na ci loo xam ne ci diggante ay ci la amoon waaye fitna daan am ci diggante jullit yi xam ngeen ne fitna yi daana tax ba ay jullit faatu fi léeg-léegi eh, yi xewoon bare na ci mel noonu waaye bu fekkee lu mel ci la nit ki réer yomb na saa yoo xamante ni dem nañ ba guerre bi ne tekk jeex gisuñ ko nay daw mu jeex jàppale dañ ko rey am beneen ixtimaal amu ci dafa dañ ko rey ngay jàpp feeñut mi ngi woon ci xare bi diggante jullit ak jullit jàppale dañ ko rey rek ca diggante boobu day iddaw rek mu jeex alal mashhur lenn ci borom xam-xam yi nag donte donte bokkut ak li nga xam ne mooy li gën a siiw ci mazhab Malik nee nañ ku mel noonu danañ ko defal li ñuy wax talawum waaye loolu jàppale ne lu gën a wér li gën a wér rek mooy day iddaw bu pare ñu doon ko mu jeex ndax jafe naa nag lu mel noonu néew na lu muy amee dem nga dem ba weesu waaja di feeñaat dañ ko rey rek jàppale dañ ko dañ ko rey am na it kum niroolu attee jafe-jafe bu fekkoon ne dafa am mbas am fen cim réew wala iyaasu billaahi taala wala feebar bu metti wala waba waba nag nañ ko leeral daana am bari na daanay am lu bari mos jàpp Sénégal gi sax daana fi am ay jamono li tax dëgg-dëgg ñu naan waba nag mooy peste boobu ngeen fi doon dégg tam amoon fi boori li jiitu 1920 boori 1918 defe ca yàgg lool ci ñu bari bari jël leen fi lu méttee métti lay doon loo xam ne bu ñëwee mbooloo lay reyandoo mbooloo mu du jeex ca benn pexe mu ci daanaka day mal ne comme dal da lay rey looloo taxoon ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax naan fu mu am bu fa kenn dem ndax loolu musiba la daanaka yàq xaru yéen yam ku nekk foo xamante ni am na fayit bu fa jógee ndax boo fa jógee mën naa am feebar bi dal na la ca kenn amu ci benn solution boo demee gis ngeen Seydina Omar radiallahu taala anhu ci ay jamonoom cam amoon ci lenn ci am saari ci dëkk yi wabaa bi am baray lenn ci aji laa saxaaba bam ba mu dem gouverneur ba mu fa nekk da ko bind leetar ne ko bul agsi fii wabaa am na fi nangam nangam Omar jëfandikoo ci li ko lislaam digal toog ci frontière bi la yem mooy dafa ñëw ba fi ñu ma fi nga xam ne ak dugut ca région boobu fa la toog xam naa yónnee la muy yónnee delluwaat ku yàlla dogaloon nit yàlla nattu la waba bu mel noonu am ci am fenn wala lu ni mel wala nga nekk ci ay jamonoom kooku ba tey atte bi mu kii rek ñoo yem bu ñu demee ba gis ne mbas moomu xaw naa dal ñu xool koo xool gisatoo ko jàppale loolu ko rey rek mu jeex gis ngeen bu njëkk sax bi muy am fii Sénégal li ñax wax peste la tuddoon mais bu lu métti la woon ku mosaa dal dañ lay ber rek bu faatoo ñii daana leen suul wala yaasu billahi taala am na ci ñoo xam ne sax dañ leen daan bàyyi noonu rek sànni leen ndax néew yu bari yi bëpp nga xamante ni daan leen dajal di leen denc ñoom waaye kooku ba tey àtteeb soxnaam noonu rek jeex na xool nañ gisatoo ku gisut sa borom jàppal ne rek jeex na jarut xaar leneen des kade nit ku koo xamante ni dafa réer ci xeex bu am diggante julli di ak yéefar yi loolu mën naa am danay am léeg-léeg lu bare bari loolu sax defe naa ku ne xam na ne moo ëpp lu muy am kooku lan mooy atteem dañ imaam ji wala xaadi bi da koy jax ab dig ab at mu mat sëkk da koy wërlu ndax geer bu am diggante jullit ak yéefar yi ndax mën naa am dañ koo lottal mu ànd ak jullit yi dem ci kenn gisu ko am na ixtimaal beneen bu am bu ne it ne mën naa am dañ koo rey mu dem ci kenn gisaatu ko waaye kooku kon atteem xam leen ne mooy dañ koy dañ koy dañ koy at la ko imaam ji di may wala xaadi bi bu jàllee rek dañ koy bàyyi dañ na ko iddawul bu iddawoo bu na dem ami na dem ak borom këram boo gisee nag masaayil yu ñett yu mujj yooyu yëpp andi ci nekk naan bu borom këram feeñee ak nangam ak nangam daanaka rek eh, xel li muy li muy li muy maanaam maanaam eh, aada li muy wuute bariwut ku mel noonu moom daanaka néew na lu muy amee borom kër bi di feeñaat toujours rek xam jàppal ne la ngay teg ba ne jafe moo tax su boobaa nag day jàpp day mel ne ko bu borom kër bi ñëwee nag day xam ne donte jafe na day jàpp ne rek nag lii moom at lislaam atte la muy atte ba noppi bokkut kee nag kee moom lu mën a nekk la boroom këram feeñaat moo tax ñu bàyyil ko occasion bu fekkoon ne dem na ba ñëw ñu ne ko léeg-léegi da nga ci jot léeg-léegi ñu ne ko doot jot kon mafquud ñeent yooyu ñeenti façon ixtimaal yooyu la am kuréel ci réewum jullit wax nañ li nga xam ne moo ci am lépp moo ci gën a bëri procédure nee nañ bi nga xamante ni dem na boole ji dañuy dem gëstu ji ndax li mu wax dëgg la am gëstu ndax bàyyil na ko lu mu mën a dundee ak ndax man mën na ko mu ñoom déet bu loolu jàllee rek dañ koy jox dig boobu nga xamante ni nee nañ ñeenti at la bu ñeenti at yi jàllee comme li ñu waxoon dañ naan ko iddawul comme idday ku faatu donte sax xamuñ ndax faatu naam déet waaye dañuy atte ne rek li ñu wax tam wit dañ koy rey bu jàllee ñu ne ko atteel ko bindal ko benn kayit boo xam ne dañ ci tegtal ci ne fase nañ ko fase koo xam ne imaam moo koy bindal su boobaa mu dem sëy mu dem mën naa dem sëy ci keneen ku ko neex sëy boobu nag lu ne mën a nekk mën naa continuer mën naa tas wax naa leen léegi ne bu fekkee borom kër bi ñëw na léeg-léeg moo li ñuy wax moom masaltu zaatul wali yi ñooy yem bu fekkoon ne ñëw na fekk ne mu iddawu ca sëyut ak keneen amul benn problème borom kër bi ci lay dellu bu fekk na mu ñëw it fekk mu iddawu ca sëyeg ca keneen takk ko waaye seqagut ak moom dara ba tey dañ koy delloo bu fekk ne ñëw na ba tey keneen takk ko takk ko takk goo xam ne baaxut ba tey dañ koy delloo borom kër bu njëkk ba takk ko takk goo xam ne ne ñëw na it borom kër ba takk ko waaye tuumaal nañ ko ne xamoon na ne borom kër bi dafa feeñ ba tey dañ koy delloo wax nañ leen it ki nga xamante ni mooy kuréer ci réewum yéefar wax nañ leen li nga xamante ni moo ci am loolu moom moo ci gën a métti mbir wax nañ leen différence bi nga xamante ni moo am ci diggante ñaar ñooñu mooy ab jullit mënees na ko nëbbu léeg-léegi bu dee ci réewum yéefar waaye bu dee réewum jullit kenn mënu ko nëbbu kenn mënu kenn ko jàpp otage moo tax réewum jullit dañ mënees na ko moo tax ñu atte ko atte bu mel noonu bu dee ci réewum yéefar nag moo tax ñu naan euh, mën naa am dañ ko tëj ca koo tëj mën nga ko tëj sax juróom-ñett fukki at mën naa am mi ngi dund moo tax ñu koy jox dat bu yàgg boobu nga xamante ni mooy juróom-ñaar fukki at ak wax nañ ko ñii ne juróom-ñett fukki at ñu sax yóbbu ko ba ci téeméeraat ñii ne juróom kii kii ak juróom waaye alaa kulli xaal bu loolu jàllee day iddawu at yi dañuy xool li ci gën a wér rek bu fekkee wuute nañ ci at yi mu amoon at yi mu amoon moom ngay dolli ba mat loolu bu fekkee wuute nañ ci nañ xool ki nga xamante ni moo gën a néew ay at rek kooku ay waxam la ñuy dégg la ñuy déglu waaye ala kulli xaal bu jógee ci loolu day dem iddawu ji bu iddawoo ba noppi nag mën naa dem seyaat ak keneen ku réer cib xare moo xam diggante ay jullit la wala moo xam diggante jullit la ak ak ay wala yaasu billaahi taala wala ku ci jamonoy mbas wax nañu leen léegi atteem bi nee nañ bu coow li jeexee rek na dem idda iddawu ji ba bu jeexee na dem iddawu ji kuréer ci réewum yéefar xeex boo xamante ni ci diggante jullit ak yéefar la woon soxnaam wax nañ leen léegi ne dañ koy imaam ji wala xaari bi da koy may at mu sëkk bu jàllee mu mu mu dem iddaw ji bu iddawoo ba noppi nag jeex la kon masaa'il yooyu mooy yi nga xamante ni mooy yi aju woon ci almafquud muy ñeenti